léegi ma dikkee laa leen ko wax. waaw dama ne yow ma dikkee. waaw. la gisee. dolli ci ma xam la xam na Serigne Touba dëggu na ci yow boobu laa la bëggaloon sama bopp nga Serigne Touba. boobee ak sa jotaay xam yow. adduna nag moom moom la suñu boom bind nii bindu nekk ci àdduna xëy na kër kër du ci mën a ñàkk te it kenn ku ñu la yàlla dogal ci moom il faut que mu fekk mu yëngatu ci waaye dama bëgg nga xam ne bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg te yàlla tax moo gën àdduna ak li ci biiram wallahi wallahi wallahi bëgg Sëriñ Tuubaa muy dëgg ngir yàlla moo gën àdduna ak li ci gouvernement yi ci àdduna yëpp bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg moo gën moo ci ci dund moo gën nit ki dundam képp jox gouvernement yi yëpp jox ko adduna ngi si biir lu booy jëriñ fi ne rek coono rek jaaxle rek tiis rek képp dund gi boobu lay doon ba jeex dégg nga bu baax santal yàlla dëgg la loolu lii yëpp yëpp la xëy na nattu la yàlla li mu dogal ci nit ki rek faaw mu waaye liy dëgg yàlla dafa wax ne eh, adduna bu fekkoon tey moom mi ko bind moom ko da ko yemale woon ak laafu yoo laafu yoo maam mu yemale adduna ak laafu yoo bu fekkoon ne ko bu ko yemale adduna ak laafu yoo bu ko du ci am kaasu ndox bu mu naan da ci lépp yéen ma ne mu ngëneem la la waaye yàlla mooy dëgg li wax mooy dëgg waaw <laughs> exemple mooy Serigne Touba biñ ko gisee bañ gisoon buñ ko gis noppee gis gis bëggu fi dara gisu fi dara nekku fi ci dara lu lu borom ba niñ ko noppee gis loolu mooy dëgg waaye nag yàlla mooy defee niisam itam ci coobareem waaye yàlla nañu yàlla gindil boppam te xiir nu ci boppam ci xiir nu Serigne Touba lii rek mooy wax ji na ma la woon xam na sëñ Tuubaa dëggu ci yow ma bëgg la ngir sëñ Tuubaa xam na sëñ Tuubaa dëggu ci yow ma bëgg la ngir sëñ dara soppiku ci ba ci sa jotaay bi loolu rek moo la moo la fi nekkal waaw xanaa wax ni sama wax du si bari

N'y a tout le monde sait qu'aussitôt après les, résultats, j'allais venir sur Touba. J'avais décidé de venir remercier le marabout, mais surtout réaffirmer mon appartenance à la communauté mourite. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Le marabout, en des termes très émouvants, m'a manifesté des sentiments forts qu'il nourrit à mon endroit. Vous m'avez vu fondre, en larmes, tellement que l'émotion était forte, je n'ai pas pu résister. Donc il ne me reste que de remercier, remercier le Khalif général des Mourites, réaffirmer mon appartenance à la communauté mourite et dire que je suis talibé, je l'ai été avant d'avoir une ambition, politique avant d'entrer en politique et je continuerai toute ma vie à être un talibé mourite. Je remercie les populations de Touba et remercie tous les leaders qui sont venus vers moi. Merci.